li sadinatan bi saafara jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci ñàkk kaaraange gi rawatina lëndëm gi nga xam ne dëkk bi di Touba lëndëm na ko moo tax daayira Touba ca kanam yëkkati lu toll ci juróom fukki million ci sunuy koppar jënd ci lu toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukki lampadaire yoo xam ne dañ koy installé ci dëkk bu sell bi di Touba. dañoo gis ne moom jafe-jafe bu rëy la boo xam ne nemmiku nañ ko ci dëkk bi ci ak lëndamaay gu metti ñu nekkoon ren nañu fexe ba programme Touba ci kanam ñu dugal ci lu jëm ci lamp yi jëm ci pot lamp yi bokkut ak lamp bunt kër yi ci biir loolu nag ci la ñu commandé luy tolloog 1960 lamp doon ñaari junni yoo xam ne manqué na ñeent fukki làmp ndax coût global u lamp yi cinquante millions la moom nañ ko jënd en espèce Touba ca kanam lépp lu muy defal Touba da koy méngaleeg jamono moo tax mu indi làmp yoo xamante ni yu moderne la boole ci li ñuy lakk ci courant du bëri ba ci ni muy tàkkee wuuteeg lamp yi fi nekkoon jafe bi fi nekkoon bi ñu ko jàngatee dañoo gis ne làmp yi problème majeur bi doon am ba tax du tàkk ni mu war a tàkkee mooy contacteur lañ doon am ak horloge xam ngeen ne lamp yi dafay am appareil yoo xam ne mooy régler heure bi war a tàkk ak heure bi war a fay bu dee lamp yi fi nekkoon te lamp appareil yooyu li mu doon am problème dafa bari ginnaaw bi ñu defee ay jàngar waxtaan ak ñi mu concerné ñu ne kon nañu méngale ñun lamp yu ñuy jënd ak fi jamono toll ci wàllu avancement technologie ci avancement technologique boobu ci la ñu xoolee ne kon nañu jënd ay lamp LED parce que LED moo gën a économie ba pare leeraay bi nga doon am fee mën nga ko am ci LED yemu ci ñu ne kon contacteur boobu nga xam ne ak horloge boobu nga xam ne da doon poser nañ ko adopté ci lampe bi mu nekk sous forme d' intelligence artificielle nag euh, benn capteur intelligent boo xam ne bu guddi jotee bu lëndëmee rek lampe bi day tàkk bu leeree lampe bi fay. liggéey bii nag Touba ca kanam biñ koy amal waxtaan nañ ci ak sous-préfet bi ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci mairie bu Touba ñoom ñi ñëpp ñu rafet lu jëf ji. maanaam éclairage fu mu taxaw rek insécurité daay daal di faatu day daal di daw ndaxte Samba Boy mi ngi opéré. si béréb yi nga xamante ni bi c'est mal éclairé moo tax donc ñoom non seulement dañuy leeral dëkk bi waaye tamit bokk nañu tamit suñuy xeex si wàllu insécurité bi aussi askan wi yeewoo ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba daañu bëgg lool ci bu leen installé làmp yi mbedd yi leer ndax bokk na ci lenn li nga xamante nii day saafara ñàkk kaaraange gi li sadinatan bikum lil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bikum lil janna min daari minan yaatal minna